ñu dem ci làmb ji ministre bi ñu dénk euh, mbir yooyu euh, daal dajale woon na njabootu làmb waxtaan ak ñoom euh, ni am na ñoo xam ni seeni kii dafa jeex li nga xam ni moom mooy seenu pal dañ ko war a changé am na nag ñu d'accordul ci loolu ci njabootu làmb ñoo xam ne ay reporter lañu war a ay mbëri làmb li ñu teg ci suñu loxo comme li tax d'accorduñ ci ñu déglu ci si lëf si dellusiwaat. PNG bi nga xamante moom la état dënk pour mu def promotion. ak développement de la lutte seen mandat bi dafa jeex mais kilifa bi nga xamante ne moom la ñu tegoon fii ci kaw bopp département des sports dafa décidé woon prolongé ko ba ci mois de septembre bi léegi nag jeex na fu mu nekk ni foog ñu dem nag ci renouvellement CNG bi te foog ñu tànn tànneef bi nag prérogative boobu noonu texte yi état du Sénégal la ko jox man maa am prérogative bi tànn na ki nga xamante ne moom moo nar a diriger CNG de lutte ma ne nag xëy na gannaaw am naa prérogative mais man duma ko doxalee noonu man dama bëgg a demee ak une démarche inclusive association yu fi teew yëpp daanaka ñëpp teewal nañ leen am na ñu leen teewal te ku ci nekk itamit jot nañ la déglu wax nga sa xalaat wax nga itamit ni nga gisee ne noonu la ñu war a doxalee CNG wax nga itamit ki nga xamante ne xëy na noonu nga bëggee mandat bii di ñëw kañ fay tege na dox ci yoon boobu noonu ñoom ñëpp ñu fi teewoon tey nag ñoo daal di rafetlu ndaje bi parce que ñoom nee nañ nekk lu mel ni mosu fee am fii ci Sénégal njaay am ministre des sports daal ñëw am pouvoir am possibilité tëju tànn ka ka neex dënk ko CNG bi defu ko mais dafa woo ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko seq pour déglu leen jël seen xalaat avant muy jël une quelconque décision ñoom ñoo rafet rafetlu ko bu baax a baax a baax jox naa leen nag dig daje mardi bii di ñëw fas ne ma jébbal benn liste liste trois personnes laa leen wax nga xam te ne buñ ko fi indee ci list boobu man ci lay sukkandiku tëju ci sama doxal nag mettre en œuvre nag sama pouvoir discrétionnaire ñuy xool ki fi nekk au moins ministre bi àndaat ak moom quelque temps su gisul loo xam ne xam na ko mu doo a wax mais nit ñi ñëw tey jii investir seen xaalis nga ne voilà warul tëgg làmb kon dañ ko a tëj kenn warul tëj làmb fédération bi ñuy wax c'est pas tellement facile parce que il faut des ligues ak ay districts loolu ay préparation la laaj ñuy yàkkamti wala ñuy contrante ba bëgg a yàq suñu yëf mhm. lamb mhm. ci magistère u ak équipe bi mu àndal ci la egsi fi mu egsi nee la tuuti buñ demee en arrière dafa amoon jamono boo xam ne mhm. ay ñetti combat mooy am par mais tey ji dem na ba nga xam ne samedi dimanche yëpp jeex na mercredi jeex yeneen jours yi sax jeex te lépp gestion moo ko a tuuti au suñu demee ba nga xam ne promoteurs yi ñoom xam nañu seen xaalis fi ñu koy dugal toog di ànd ak ay nit def ay saison yoo xam ne ñetti saison wala ñeenti saison yoo xam ne amul benn VIP bu toog bëriwul mbër yu ndaw yi tamit mu am ay génération yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi bëri kon nañu fexe reconduire daal encore même bureau bi ministre bi ubbiwaat bëtam xool ba xam est que gestion bi liñ ci wax baax na mais géwél yi dañuy tànn ñun les promoteurs laa wax majorité bi à pour cent ah, ah. ministre ko ko wax ñun la ñu tànn tegal ñu ko fi ñun bi moo am. ok sañ-sañ ne kii laa yor Congo ma xam daal mooy la ministre bi. war a nommer kan mooy doon eh, bi nee na ngeen ko ñetti nit. ku nekk ngeen tànn. groupe bu nekk. Eh. mais kan mooy tànn. non mais c'est ça nga mën a nekk ménager. nekk membre du CNG. di liggéey ak promoteur. kon ça veut dire que conflit d'intérêt yi am ci biir làmb moo gangréné suñu làmb. madame la ministre yàlla def na nag wax dëgg yàlla am na am na dégg-dégg dégg na bu baax fu ñuy waxee làmb amul benn sport bu ko ëpp problème mën nañ nag toog fii nag def seen ay schéma def ay seen tactique seen xam nga du tëgg wëndeel gars parce que sénégalais yi dafa ñu ah reconversion des lutteurs dafa war a am parce que si parce que dafa am état bu bees bu fi nekk mbër dafa ànd ak métier tool yaa ngi fi mbër yi dañu war a am yeneen activité bu dul làmb rek kuñ fi mën a teg dañu war a conscient ni dañu war a teg ay mécanisme dem vers une fédération voilà mi ngi noonu kon <clears throat> ñii ngeen dégg ñoo seq làmb muy ci diggante communicateur bi ak ki nga xam ne mooy mbër mi ak ñi jàpp ni daal dañuy jàppale CNG waaye li ci solo di nga dooree ci euh, ministre bi li mu wax nee na bu njëkk ko fi daan nekk day jël rek daal di signé tabb mais moom mu ñëw ubbeeku woo leen ñu toog ñu waxtaan euh, waaye nag am na ñu ci àndul ñi ànd nañoo bira mais bu ñu dégloo Gris Bordeaux moom dafa mel ni dañoo bëgg mbër yi ñoom ñu jox leen ñu téye làmb ji. am na solo son bu xam nga làmb ji moom liñ si war a defar dafa bari. làmb ji Mhm. ministre bi nag dinañ na xool ba xam ne ñii kat ñu ndax ñoom ñi ñëpp dañ doon xas bara bira seen na fi jóge na jóge ñii naan man candidat laa ñëpp naan candidat laa mhm. mun leen léegi comme que ñëpp ay candidat léegi damay ñëw ma tëj làmb ji ba am candidat bu kii ñu ne ko noonoo ñun ñëpp ànd nañ ak loolu xeetu yar la xeetu yar la mais boo dégloo giri moom daf mel ni giri mais ñëpp nee ñoom tànn nañ biran te ñoom ñoo doon xas biran ngir bañ làmb tànnagul mais ministre bi tànnagul waaw waaye ñoom dañu leen kii ne ñoom ñëpp a yëkkati loxo ni biraa biraa am na si ko xam ne sax génn na di kaas naan moom ñoo xas biraa tey ñëpp naan biraa biraa kon loolu xeetu corriger bu ñu leen di corriger leen ndax ñoom it làmb ji son bi hmm. suñ bëggee mu baax il faut ñu intégrer ko si ministre du sport ji intégrer ko si bu baax intégrer mooy la comme saa man bu ma tëggee sama làmb damay dem ministre du sport su ma ah. demee ni leen diw ak diw laa tëgg ñu jox ma këyit hmm. ni ma fayal Euh, policiers yi ma fay police fay sàndar ma fay nangam ñu bindal ma desar su jox ma ma dem. mais CNG mais CNG mi miy defar loolu. ci ministère bi la bokk. non non bokk waaye dañ koo maanaam dañ koo beddi. CNG waaw. beddi ko. beddi mooy boo demee weer si CNG. CNG ñoom ñooy dajale seen xaalis bu ñu demee ba yàgg ñu organiser sa dara ak yooyu. waaw mais après day rendre compte ministère bi. non non rendre bi moom at mu jeex bu ko neexee rendre compte bu ko neexee. Ah! waaw. <laughs> mais gisoo si éva def nañ seen évaluation ci def nañ ko fii Assane. mooy li ma la wax nañ at mi li ñu génne li ñu tëgg euh, euh, affaire yëpp. waaw lépp rek dañ ni li ñu dagg si mbëri tëgg nañ si làmb jii def nañ si lii def nañ si lii def nañ si lii. ok ku ko def loolu loolu ministre sport a ko war a def. d'accord kon nag yow da bëgg ñu jël affaire bi ah, jox ko. ministère bi ministre sport bi mu jëlal boppam làmb ji yilif ko bu ko defee mu wut ab bureau teg fa kenn ku ñëw pour làmb nga dem sa bureau boobee. nga dagg fa la nga fay dagg bu bis baa ministre sport bi moom mooy jël maanaam ñi nga xamante ñoo war a aar làmb ji policiers yeeg yépp ci ministre sport mu leen war a yebal décret boo xam ne ministre sport la jógee mu dem yabal ñaata policier fay doy mhm. ñu sécurité làmb jeeg yépp lépp lu fi jóge nga xam ne responsable ministre de sport la mhm. su boobaa làmb ji dana gën a jubbantiku mhm. mais ministre de sport rek euh, gis nga gouvernement bu Sénégal bu ñu bañ ñi ñoo fi waxoon trente ministres la ñuy am ñu ngi ci soixante ministres bu ñu bañ ñu ne ñii 25 ministres lañu waxoon ñu ngi si 70 ministres bu ñu ko bañ ministre bu ñu mën di fal nañ ko fal pour mu liggéeyal Sénégal mais ministre bii lañ ko jox dafa diis. dafa diis dafa diis trop si jigéen. lu ci diis comme. ñaata ministère lañ ko jox est-ce que joxuñu ko ñetti ministère waaw il faut ñu dindil ko sport bi. waaw def naa sport ak culture la. waa sport ak culture ak senes ñetti ministère lañ ko jox. waaw mais sport ak jeunesse kay benn la. non du benn. Ah, non dama ni jeunesse bi ñoo ne ci sport bi non sport bi ñu nekk ay paa lañ ngir bëri doo moo la mag. <laughs> mën na maa jur. <laughs> ah voilà kon nag il faut rek ñii ñaan ñuy ñaan euh, président Diomaye ak euh, ministre bi gouvernement am nañu bu élection yi jàllee nañ ko xaajaleel kii buñ ko mënut a jox benn nit nañ ko jox ñaari ñu dindi sport bi. Mhm. ndax sport bi mooy li gën a compliqué boo dee xool gis nga ko xam naa danga sa àgg sa mbirum football ba. làmb ji gis nga ko nii ni mu mel. lii dafa doon loo xamante ni dafa compliqué compliqué boo xamante ni il faut que ñu jox ko kenn nit mu yore sport ba pare ñu gën koo dooleel gën koo jàppale. mais soxna si gis nga ko tey ji nee na bu làmb ji ñëwee mu war a tëju liggéey si làmb ji jamono jooju football baa nga am problème mu war saa tëju. jamono jooju handball am problème mu war saa tëju jeunesse bi am problème mu war saa tëju culture bi nangam mu war saa tëju si jigéen loolu attunu ko. waaw nañu wàññi poste yi jox ay ministère ñeneen ñu leen ñu dem liggéey. waaw mais xam nga ministère yi ministère yi dafa mi ngi mel ne exemple boo duggee solution kilifa gaa ngi nii nga ne boutique bi ñu la asalin responsable nga dem ca télé ba ñu ne ma son bi mooy lii nga dem rési ñu la moo doo jiite technique bi nga dem fële ñu ni Abdou Toba jiite lépp lu jëm ci wàllu caméraman yi ak yooyu maanaam ni ñu ko tasee noonu la nekkee ci ministère nekkul ndaw si mooy lu ne nekk mooy jóg dem def lii def laa léegi benn léegi benn léegi benn saa bu xëyee porte bi lay dugg mais ministère bi tey ji bu xëyee ñëw fii xool ca porte ba waaw bu xëyee ñëw bu ñëwee xool bu ñëwee su bureau bi solution xool noppi dem ci FM exemple xool noppi dem TFM waaw waaw loolu lépp mu bëggoon koy mun léegi li ma la bëgg wax mooy exemple tey saa bi nekkee kilifa kër gi li muy diis diis diis mhm. lim ko tas moo tax mu woyof day kër waaw génn kër la mais lee léegi lee xam nga ñetti kër la waa leen bu dee exemple boo ko joxee léegi ñetti kër la waaw lay wax léegi ñetti kër yi Macky Sall ak Macky Sall ak Abdoulaye Wade da ko yàq yàquñu ko de xaaral. Abdoulaye Wade waa xaaral waa diglu waa diglu dama lay wax rek. ma eh, Abdou Diouf eh, ci ay ayam ak la ko jiir dañu daan wax ministre des sports et culture jeunesse Macky sàll ak Abdoulaye Wade ñoo ñëw tas ko. kor li Sandiog doon wax bëggoon a dugal seeni nit mais affaire yi benn la woon Macky ak Abdoulaye Wade ko tas man daal Macky Abdoulaye Wade man waxuma leen man ñii laay wax. waaw mais dama man tam xam nga dama lay fàttali rek. xam nga boo nee man loolu laay wax. c'est-à-dire man dama lay fàttali ni la ñii ñëw ko tas. loolu nga ma fàttali ginnaaw ñi tas nañ ko ba nga xamante ni lii doon na ad maam dundinu Sénégal bi gën naa yokk. Hmm. Sénégal gën naa yokk sport bi gën naa bari. Hmm. problème yi gën naa bari. kon méngoo dafa méngoo jamono. Hmm. moo ñu faram-fàccee ministère yi. ñu faram-fàcce waaw faram-fàcce na maam comme ça tey ji ministre bii am na ay borom xam-xam yu nga xam ne ñu ngi fi ñu fal la ministre des sports xam nga am na xam dañuy. àndaw ah, si atul sport. non dafa diis si moom. ci diis si naka. ministère yi mu boole ñetti ministère yi mu boole moo diis si moom. est-ce que ko diisal ci sa bopp. waaw dafa diis dafa diis dafa metti ah président de kon xamu fu mu jëm. moom mi yanu réew mi. waaw président kay moom moom président lu mu yanu président lu mu. <laughs> président réew mi président bi nu mu yanu réew mi. ah bu ministère bi jiitee. waaw bokkuñu. ministère yow président boo xam ne bànqaas yëpp. yaa ko yanu yaa ko yanu mais xam nga ni da ngaa wut ñoo fa teg. waaw kii dafa am. non ministre bi daal son bu. waaw d' accord c' est dafa diis. kon Assane dafa diis sport bi bàyyi ko yeneen ñaari. wallaay dafa diis mesare. bu ñu ko bàyyee yeneen ñaari ministères yi moom dana ko mën a régler làmb ji it ñoom it ñu géem a organiser wu ñu intégré ko si ministre sport dogal bi di jógee si ministre sport mu koy tëj mu koy tijji mais làmb ji kenn du ko tëj ndax dafa am ñoo xam ne dañ si investir seen xaalis am si ñoo xamante ni si loolu la liggéey kon balaa datu élection yi dat balaa datu ti tijji làmb jee jot nañ ko organiser mu gaaw ñu tijji làmb ji te ki ko xamante ni moom la ñuy fal bu bu mu beru si ay ay nangam na ñëw intégré si biir ministre des sports yore làmb ji macha allah fal ko muy xam muy xam luy la fanaan si làmb ji ak luy yenn si làmb ji d'accord mhm. jërëjëf xam naa ni ni mu ko jàngatee moom noonu la ko comprendre ndax fi mu toll nii bi nga ko joxee ci nga ko joxit lu ci nekk dénkaane na ko mhm. émission yi ma ko joxoon Assane dénkaane na ko mhm. euh, boutique bi <laughs> Assane dénkaane la ko moom loo ko jox rek da koy dénkaane kon nag moo tax mu nañu partagé affaire yi. Mm. ndax fi mu nii ñu ngi nuyu waa euh, seen xalaat ndayaa ko yore. Mm. te na ko yoroon boutique bi ñu ngi nuyu Kànj ak ñoom Ousmane ak ñun ñëpp. Mm. tabaarkàlla ci euh, partagé gi. alaaji mm-hmm. noo gisee ministre bi li mu wax. am na yu wax ni moo daan am. te ju def li ngay def. woote na waxtaan gannaaw woote waxtaan leen coow li bari na. làmb moom. boo ci duggee rek coow am parce que ay clan lañ hmm. euh, ñii dañuy ànd ak diw ñii ànd ak diw euh, ku ci nekk xool fa ngay tojee sa bopp ji nax hmm. mooy lijjantee defar sa affaire làmb mooy millier boo xamante ni bi milieu bu kii la léegi nag façon bi mu leen def nii mooy nekk leen ay responsable euh, wéet leen ci seen biir ku nekk na tànn hmm. bu ngeen ñëwee ngeen présenté ma ca biir loolu man ma tànn mënoon naa toog tànn ku ma neex. Mhm. parce que am naa doole googu. Mhm. waaye dama préféré bi yoon ma boole leen ci tànn bi. Mhm. loolu nag xalaat la boo xam ne xalaat bu rafet la xalaat la boo xam ne bi aussi tamit xalaat bu baax la euh, parce que làmb euh, dafa nekk loo xamante ni. maanaam mën naa am solo lool ci réew mi. waaye nii ñu koy defee wax dëgg fa yàlla dana arranger ñenn mais dana am ñu bari ñoo xamante ni danañ nekk ci làmb ba jóge ci mais lañ ca waroon a am duñ ko ci am parce que làmb yi façon bi ñu koy tëggee ak ni ñu koy defee il faut mu am ñoo xamante ni euh, jàpp naa ni am nañu gis-gis am vision pour yu bari war a mën a ne mbër yi doon nañ jéem a créer seen association association euh, des anciens lutteurs am na association am na association euh, communicateur traditionnel maanaam am na association bu ne boo xamante ne ñëpp ñu ngi tënku ci làmb mm-hmm. mais boo seetee acteur làmb yi dëggantaan mm-hmm. ñi nga xamante ne bi tey buñ ñee làmb euh, boo seetee ñi gën a tuuti. Mhm. ñooy tax làmb maanaam tey ñi ngi wax ay. bés ñi gën a tuuti nangam bés nangam eh, bu ñëwee bésu tey ñu jël ñaari mbër yu mag ñoo xam ne ñoo war a bëri. Mhm. maanaam da ngay gis ñaari mbër yu mag yooyu dina am pratiquement ay sept combats wala cinq combats yoo xamante ni bii ñooy am. Mhm. mbër yooyu. nan la ñuy nekkee ci écrit yi nan la ñuy def pour subventionner écrit yi nan la def pour jàppale leen pour mbër yooyu bu ñu mënee dem entraînement ba pare mën a loolu la parce que war nañu créer ay si kii yoo xamante ni bii tey écrit bu nekk da ngay am kii boo xamante ni même mbër mu mag mu fa nekk parce que dañ laa jàppale ba nga nekk mbër mu mag dafa am foo jaar. Mhm. am na ci ay coono daan nga entraîné ji boo daan entraîné ji. Euh, dem ñëw daa am sax loo reeree. war na am loo xam ne bi écrit bi war na koy mën a jariñ kii bi quoi. bu ko defee nga xamante ni bi comme ci écrit yi. comme tey mais est ce que écrit est ce que ñu ngi cotiser est ce que ñu ngi am budget est ce que est ce que. loolu tax loolu war a am na écrit yoo xamante ne bi am na xaalis. fu ñu jëlee xaalis. war dafa waroon a am xaalis laa wax. parce que écurie yoo xamante ni bii mbër maa ngay bëri ay combat ñu naan cent millions yoo xamante ni bii moom. ñu naan ñu ngi bëri lii ñu naan. cent millions seen course yi dafa war a am lu mu ci am. cent millions alaaj ci seen course yi amuñu ñu ci bëri amuñu moto buñ dawal. waaw <laughs> donc course yi boobu course yi ñu bëgg a. man gis naa fi ay course yu bëri yoo ñuy xaar taxi. lam man jàpp naa ne am na lu bari loo xamante ni bii daal euh, ñoom ñi nga xamante ni bii ñi ko xam parce que làmb dañoo bëggut a yaatal parfois maanaam ñi nga xam ne xam nañ làmb dëgg ñi xam pour développer yëf yi. Hmm. maanaam dañ leen di bloqué. boo hmm. ñëwee dañ leen njëkk a freiné xamoo dara ci làmb. éliminé nañ la si. yaa ngi dégg maanaam làmb da ngay kii teg nañ benn ni làmb daan doxee depuis jamonoy c'est pas la peine ba nëgë ni hmm. noonu la làmb di doxee. te dafa a changer. te war na soppeeku. parce que léegi mbëri ay professionnel lañ. dañuy dem di entraîner ji mais. boo seetee doxalin bi. soppeeku comprendre boo waxee nag ñu ne la culture bi nga xamante ni bii moo ci nekk ak yooyu kenn du ko soppi kenn du ko lii mais ñoom ñoo commencé dugal ci loo xamante ni bii tey. Euh, soppeeku war am na yu bari yoo xamante ni bii war na soppeeku ministre bi li mu leen wax nii ñoom léegi dinañ tànn. ku ci nekk dina indi kenn. boobaa mu daal di tànn. ndax Bira Sène parce que kii li mu wax nii ne Bira moo yóbbu fii làmb man lii ñuy wax nii ne Bira moo yóbbu fii làmb ah, Aliou Sarr lañ ko waxaloon ah, bërki dépp nee nañ Aliou lii yëpp moom moo ko def léegi football nañ lépp lu Aliou Sarr mës a def léegi indi nañ nee nañ Bira moo def lii te làmb tamit dañu war a def mu nekk affaire bi nekk ñaari mandat wala nga def benn mandat ab lay seen g bi hmm. mais démocratie dafa war waaw am na am na ñu bari ñu ni woon nekk fa ñaataat yàgg na yàgg na waaw xam nga ñu soog a ñëw Bira Sène daal di ñëw Bira Sène bi nekkutoon booy Aliou Sarr hmm. ci jamono yi kii doon nañu wax euh, tafaage ba yàgg ñu ni euh, Bécaye Mbaye ñu ngi ci tuddal ay nit yu bari ñu ko war a ñoom sax ba léegi ñooñu ñuy wax noonu Mm. est-ce que aussi tamit war nañoo mën a yor ràmb ji. parce que affaire yi tamit. dafa am lu mu laaj quoi ko fi amul ay nit si làmb ji. yoroo écrit yoroo dara boo ko si benn pour nga nekk c'est que war nañu saa amu ah, fa ay nit faralut ma dugal ci làmb. non non loolu moom mën naa nekk moom. ministre yow laay waxal léegi kon loolu. non naa nekk <laughs> moom. boo Max Mbargane taftal ko si moom. wax dëgg yàlla. nga ne woo kat. Max Mbargane taftal ko si moom. Ah, waaw ah, bëgg naa leen alaaj yow boo ne il faut Moussa ah, dana dem il faut ñu mm. jël koo xam ne mm. nekkul ci système lamb lamb xam na lamb xam na yow xam nga xam nga lamb yow nuy ñëw yow nuy waxee na yoon yow nii ngay nan ngay waxee lamb nu mu war a doxee lépp mm. ni dañ ko war a changé ñun la yaa koy changé nga ne xaw ma ci dara ah Sénégal rek Sadio kon boog Sadio bu CNG. waaw ah. làmb moom macha allah nañ nañ xool ñoo xam ni ci seen biir. <laughs> comprendre nga nañu xool ñoo xamante ni bi war nañ mën a développer làmb ji quoi comprendre te it euh, wax dëgg fa yàlla li nga xamante ni man man sony bu li ñuy wax ni moom la ñuy fay mbëri hmm. il faut tamit yooyu ñu koy lijjanti mais kii nee na sept millions de combat yu ndaw yi nee na pour nga dëgg combat yu ndaw yi di nga dépenser sept millions ku wax loolu ci biir reportage Mm. waaw nee pour nga tëgg lamb yi ndaw yi da lay coûter 7 millions li nga fay li nga li nga fay 7 millions 7 millions waaw wax na ko ci biir waaw tëggkat yeeg yëpp daal maanaam dina ci nekk pour nga mën a loolu combat yi ndaw yi combat yi ndaw yi waaw mooy mbër yu ndaw yi léegi nag boo yi a tëgg mbër yu ndaw yi léegi bu dee ñële yaa nga 100 millions 100 yooyu amut CNG de nekku fa amu fa déedéet CNG ñuy wax hmm. war nañu lijjanti fan la xaalis boobu di dugg. ak léegi Aliou Ndiaye mi laaj 500 millions contre Balla Gaye bi kon yooyu noonu. amul ah nañ ko lijjanti 500 millions yi na dem fay fële. fan bu dem na ko yóbbu CNG. mais loolu leen a leer. parce que loolu kenn waru mën a wax nii parce que li Assane waxoon li Assane waxoon yi ministre des sports foofu lépp leer. non non parce que man bon yooyu pour man genre kii la quoi te man jàpp naa ni état bi dina ci dina ko lijjanti. muy man dama jàpp ni yenn yi genre blanchiment d'argent la boo xamante ni bii ñu ngi koy. Ah, ñu ngi koy jéem a def gars yi promoteur am na xaalis à laaj c'est que bon xam tey jii as bu ma ñëwee ne la damay tëgg son yu bokk yi hmm. dinaa leen fay kenn ku nekk cent millions waaw ngeen ne ok te man maa ngi déclaré ne yéen ñaa ñëpp maa ngi leen fay ku nekk quinze million ca fa nga xam ni fa laa war a déclaré CNG loolu la xam léegi leneen li nga xamante ni moom la ñu kii loolu te dañ koy wax bu mu siiw hmm. yow tey boo ñëwee nga xëy suba dem di déposer ci banque ba cinquante millions banque ba bu ñu la laajee da nga fooy wax dafa ko jëlee sama combat bi. comprendre bu ñu la waxee ne la waa saay yi foo jëlee cinquante millions da nga naan combat bi ma bëri dem déggoo leen xanaa liñ ma fay. ñu ma fay nangam. déggoo ko du yéen a ko dégg. alors du yéen ko dégg dégg ngeen ci rajo bi sa sa cinquante millions bu ko defee xaalis boobu duggul te fekk xaalis boobu peut-être mën na nekk xaalis boo xamante ni. Euh, lew jaarut fu mu war a jaar. donc il faut que tamit. état bi vigilant ci côté boobu. li nga xam ne moom la ñuy wax ne dañuy moom la ñuy fay mbër mi. dañ cee war a fay ay impôt du dëgg. si bu dee dañ ne fay nañ mbër mi cent million am na loo xamante ni bi réew mee ko ci moom. mais mënuñoo nangu ñu ne fay nañ mbër mi cent million ba pare. buñ demee CNG fekk ña fa déclaré quinze millions. loolu jaaduwut. d'accord comprendre te mhm. yooyu jàpp naa ni nguur gi dana ko lijjanti. Mhm. parce que man combat yu bari fii Gaston dem si yàlla Gaston yàlla na ko yàlla xare àjjana mhm. daan na ko wax ne am na yu bari yoo xamante ni bii moom jaaxal na ko ah, waaw parce que nee na mënoo jaay bii ba génn ci noonu léegi nag sponsor rek nee na dugg ci yeneen seen affaire internet yooyu. waaw mooy pay per waaw ñu ngi ci ak. Euh, ak ak ak yi. Oh. peut-être ñu ngi ci pourtant nag alaaj pay per ñoom bu fekkoon amul ay sàcc craqué moom mën na leen a jàppale. Hmm. parce que maa dégg waa ji ni combat euh, kii bi euh, Eumeu Sène. Hmm. ak Modou Lo bu mujj bi non non kii laa bëgg a wax. top seen waajoo ñu doon rokkos rokkos yu bari ki tëkk Pikine sëll bi Ama Balde. Hmm. ak kii Modou nee na 60 millions la ñu am ci pay per view. am nañ ci 60 millions. waaw. léegi boo amee ci stade ba 10 10 muy 70 nga déclaré ne mbëri ku ne 100 loolu day xaw a doy waar de loolu boo wersee matagul. loolu boo wersee ni foofu laa ko jëlee. ba tey yeggagoo. <laughs> lii la wax rek. waaw lii laa sa amee moom kenn du la wedd. waaw non foofu mën nañ ko contrôler. Hmm? waaw pay-per-view bi mën nañ ko état mën na ko contrôler day am trace nga naan day am ba ñu a mais foofu laa la wax foofu ñu def na seetaan te duñu fay yooyu am na trace quoi am na ko seetaan te duñu fay yooyu am li nga xam nga tey boo boo piraté nga def leneen ak leneen hmm. loolu yaa nga def mais trace moom am na hmm. am na trace waaw <coughs> bi bu amee trace rek amul problème. macha allah ñoo xam ne fii la jóge fii la jaar. jërëjëf. jërëjëf alaaji rek yorub saak. waaw. lii fu mu ko foo jëlee nga ne ah da ngaa déggul ci rajo bi li ñu may fay. 100 millions ma indi 60 war nga ma maa laaj fu ma ko jëlee. yow te yaa ngi nii boo boo yenn woon juróomi million da yóbbu ko ca banque ba ñu indi la problème. ku ma koy indi. jëlal léegi boo amee ah. juróomi demal yóbbu ko xool. dama ko yóbbu léegi man ma neexoon dem dem dépp 100 millions di. yow waaw. boo demee de ca banque ba ngay yenn. lu <laughs> ma fa yenn bu yàgg dañuy yow Assane. di nga justifier alal jooju fu mu jógee si lu tax loolu. ah waaw xaalis bi da war a wax fu mu jógee. toogal foofu rek dañ laa dafa war a am fu mu jaar. toogal foofu. Assane eh, dangaa jékki-jékki rek yor waxande rek dem yóbbu. kanaa gisuñu li may xëy di chronique. Assane. chronique boobu eh, chronique cent millions cent millions. waaw. <laughs> mag lay delloo ca làmb ja <laughs> leen li may daa mel mbokk ba yóbbante woon dara loo xam ne dafa waroon a jëm ci eh, ab ab liggéey bu muy liggéey. Hmm. man la ma ci am rek mooy dem jëlal ko yóbbul ko lii saa wax ni moo ci am ba ma demee question yu dul jeex lañ ma yónni nga bañ lii fu mu jógee leen damay dem si beneen lii fu mu jógee eh, pour lan la looy liggéey na nangam te dañ laa yóbbante rek jëlal ma lii joxal ma lii képp. ba waxoon damay dem si beneen ñun la. kaay beneen waaw. boo demee foofu ñu téyaat la. Hmm, sa yombul de rajo bàyyi xel de aywa.